mauvaise nouvelle boo xamante ne dal na ci kaw group bi nga xamante ne moom mooy faj Walfadjri jamono jile PDG ba di ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Niass mu ngi ci guut gannaaw rek li nga xamante ne dafay am note bu tukkee ci ki nga xamante ne moom mooy directrice bu yees bi nga xamante ne moo nekk ci kër googee di TDS nee nañu nag jamono jile groupe Walfadjri daf leen yoreel fukki million yoo xamante ne daf leen ko war a jox gannaaw rek ba ñu amal seen diffusion ca fa nga xamante ne moom mooy TNT boobee tax na nag ba koppar yooyu mu ngi toll ci fukk million li nga xamante ne nag moom mooy koppar yooyu nee nañu nag benn semaine la ñu leen may ngir nag ñu fay ko bu ñu ko fayul TDS SA di groupe boobee dina nag dem saisir CNRA mi nga xamante ne moom mooy réguler lépp lu jëm ci mbirum li nga xamante ne moom mooy télé ak rajo nee nañu nag CNRA moom mi moo fas kii nag àtte ca mbir yooyee na ko article 9 bu alinéa contrat bi daal di digle nañu nag jamono jile njiit bu TDS di Aminata Sarr li ni mel la daal di xamle lu ko mooyul groupe Walfadjri dinañu nag nangu li nga xamante ne moom mooy ab licence am mu nekk ne am na ci digg TDS ak groupe bile nga xamante ne moom mooy Walfadjri Les Échos yéenekaay moo xamle li ni mel nee nañu nag ci xibaar yi Les Échos fësal du groupe Walfadjri kott ñoo nekk ci guuta am na nag yeneen télévision yoo xamante ne jamono jile bu ñu mooy nag la dal Walfadjri dina leen dal loolee nag jàpp nañ ab acharnement la bu ñu ñu jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy maison de presse yi fexe ba liquider leen loolee lañ bëgg te ku ko bëgg nag du kenn ku du njiitu réew bu Sénégal di président Diomaye Faye ak ministre bi li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. ca ONAS gannaaw bañ fa dàqee njiit ba di ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Dieng bind na nag a bataaxal daal di koy jagleel jëwriñ ji nga xamante ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum assainissement di ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye nee na nag li nga xamante ne dafay ay tuuma ñu teg ko ci ndoddam takku na lool gannaaw rek nag ba ñu ko dàqee ci li nga xamante ne moom mooy direction générale bu ONAS moom Cheikh Dieng àllarba bi ñu génn ci conseil des ministres ba ñu doon amal la ñu ko nag jëlee ca kër googee nee nañu nag jamono jii ab lettre la jagleel ki nga xamante ne moom mooy ministre de la assainissement di Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng mu ngay setal boppam ci tuuma ya ñu tegoon ci ndoddam ba jële ko ca direction général bu ONAS nee na nag na xamante ne noonee la ñu ko tuddalee mbir ya demeewul noonu ay surfacturation yu ko tuddal moom mooy opération curtage bassin ba nga xamante ne moo nekk ci diwaanu zone de captage ñu ne nag facture ya toll woon na ci 83 millions loolee nag entreprise bi nga xamante ne moom mooy moo ko amaloon ci li nga xamante ne moo jëm ci li mooy camion bay évacuer mbir ya 20 mètres bu nekk 66 400 la ñu doon fay li nga xamante ne moom mooy camion ba ci li nga xamante moom mooy mètre carré bu ci nekk ngir nag ñu daal di koy yóbbu fa nga xamante moom ca diwaanu Mbëbës coût réel ba nag ci moo na lool nee na nag na ci trois cent quinze millions li nga xamante ne moom mooy camion yi ak engin yi lépp njëgga loolee la toll ci montant financier boobee nee na nag na ci trois cent millions yoo xamante ne dañ ko jël jagleel ko entreprise bi nga xamante ne moom moo doon caytu liggéey boobee Cheikh Dieng yemu ca nee na nag lépp loo xamante dafay procédure jëwriñ jiile moo ko dàkkaloon mu jëm nag ci ay liggéey yoo xamante ne jotoon na ko sumb la ñu ko def jàpp na ay tuuma la tax sax ñu ñàkk postam ba nga xamante ne moo fare ca diwaanu annonce lu ci mën a am Cheikh Dieng bataaxal boobee bind na ko raxas boppam ba mu set setal boppam ci tuuma yi nga xamante ne tegoon nañ ko ci ndoddam ñu dem ca pencum ndaw réew ma ca assemblée nationale googee lancé nañ lii di compte à rebours bi ngir nag fexe ba dissoudre li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale bu Sénégal Sénégal gannaaw rek ba ñu ne dañu ko bëgg a tas njiitu réew Sénégal nga xamante ne moom mooy président Diomaye Faye moo ne mel nee nañu nag loolee dañ ko bëggoon a def laata rek datu 31 du mujj antu nee mooy chef de l'état la mu mbëbët ngir nag abrégé li nga xamante ne moom mooy mandat quatorzième législature yi lee loolee nag bu ñu nag li nga xamante ne moom mooy liggéey ba la ca yemb bëriwul ba tax na sax dina andi ay dëng-dëng lëng ca mbir yooyee tax na sax ba ñu daal àddu ci mbir yi daal di laaj ndax li ni mel dinañ ko fas yéene amal fa nga xamante ne moom mooy ci hémicycle boobee di assemblée nationale njiitu réew mi la mu bëgg mooy dissoudre ko rek laata rek li nga xamante moom mooy datu fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bi ñu dëgmal mu nekk nag loo xamante jamono jileem bëbatam la bu ñu sukkandikoo ci l'observateur nee nañu nag na ko article bu constitution sénégalais daal di bëggee noonu lañ ko fas yéene nag amalee loole nag nekk mbébatu kii di président Diomaye Faye nga xamante ne moom mooy ci assemblée nationale bëgg na nag àtte ca mbir yooyu nga xamante ne xew na moom mooy décompte bi nag nee nañu nag dinañ ko tàmbali lu yàggul dara ndaxte nag ci datu fukki fan ak ñeent ci weeru septembre la ki nga xamante ne moom mooy président Diomaye Faye fas yéene nag appliqué article 87 bu constitution sénégalaise te loole nag jàpp nañ ne dina dissoudre maanaam nag tas li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale décret na ko te nag am na sañ-sañ ngir def ko ci datu li moom mooy juróom-benn fukki fan am na ko ngir nag mën a def li lu koy yees na am 90 jours yoo xamante ne dinañu nag fësal bile décret ngir tas li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale bu ñu daje nag fexe ba waxtaane li ni mel waaye nag mandat yi nga xamante ne ñoom ñooy député yooyu nekkul loo xamante ne dañu koy mën a nag nax saaxal ci saasi tànk nag yeesaluñu li nga xamante ne moom mooy bile assemblée nationale jërë ngeen jëf mbokk ñu doon teewlu ci chaîne bi nga xamante moom mooy Rewmi TV loolee moo fi yeesandi ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax wuy leen di abonné ci seen chaîne bi nga xamante ne moom mooy Rewmi TV ngeen bës lii du cloche de notification bi bu boobaa nag da ngeen jot bépp vidéo boo xamante ni Rewmi TV dugal na ko cër ngeen jot